waa kay asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mboolem waa Sénégal mboolem diaspora bi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di wax ne ñëwaat naa beneen yoon ci émission bi nga xam ne maa ngi koy def ak sama sëriñ sëñ Bas. loolu wax dëgg képp la jaama yàlla bi lépp loo xam ne mu ngi koy liggéey ak nit ñi na leen wax dëgg ndax dëgg mooy li nga xam ne moo njëkk dëgg mooy li nga xam ne moom moo mujj te yàlla suñ borom bi képp koo xam ne mu ngi wax dëgg yàlla suñ borom mbir rëbb na képp koo xam ne nekkut di wax dëgg te soxla alalu nit ñi bu tax nga wax leen loo xam ne nekkut diaspora bi moom damay wax ne ñoom samay nit leen diaspora bi samay mbir leen te ñoom jëflante na ñoom ñoom ci zahir ak ci baatin te liñ jëflante ak ñoom ñoom gis neen ko kon wax dëgg fa yàlla ñun amuñ benn muskila ak ñoom lu dul liñ leen wax ñu def ko garab gi nga xam ne moom laa tiim nii sax mu ngi war a dem ba portigal te borom tey jii incha allah boole na ma koo xam ne moom laa war a jox garab yi pour mu yóbbu ko man awma jafe-jafe boobu. loo bi. moom li ëpp ci li ma leen di liggéeyal këyit la mboolem koo xam ne nekk na ci diaspora bi këyit moo ëpp ci li may liggéey dinay liggéeyal nit nag ci wàllu nekk ci place di liggéey ba pare sa liggéey doxut wala ngay yor xaalis. du taxaw sa loxo yi jafe-jafe yooyu dinaa koy liggéey waaye li ëpp ci li ma ci liggéey daal moom ci wàllu këyit la loolu laa seq ak waa jaspora bi mais maa ngi jëflante ñeneen ñi ci yeneen i mbir yoo xam ne sax euh, mënuñ koo nettali. bu ñi nekk ci réew mi bëgg a tukki loolu waxoon naa ko ci sama vidéo ba le passé dama ne loolu code la boo xam ne ci alquran rek damay dugg ci Issa rek am bunt boo xam ne dama ko fay laal am lu ma ko booleel rek képp koo xam ne soxla ngaa tukki mbaa nga soxla këyit. ak kum mën a doon soo ñëwee rek ci kàttanu yàlla suñ la defalee liñ lay defal insha allahu bu soobee yàlla danga jot sa kayit bu dee loo waroon a déposé la pour jot ci kàttanu yàlla da ci jot bu dee entreprise la da nga ci jot wasalaam sëriñ bi. Euh, kuy déposé bi. déedéet ñun suñu liggéey du doxee noonu képp koo xam ne dafa ñëw pour wax la soxla da ngay xool boo ko xoolee wala nga listixaar ko su ko defee da nga xam jafe-jafeem lan la ak lan mooy gàllankooram nit mu am jafe-jafe fekk moom loolu ci jëmmam ji moom ci jëmmi boppam moo tëju kon lépp loo xam ne mu ngi koy lijjanti rek loolu dafay am jafe-jafe dafay foog ne ki muy seqat mbiru kayit yi ko koy tappale fekk ne déedéet nga gis sëriñ boo xam ne dafa jóg pour ñaanal nit ba pare seetut ko moom du xam kon fan lay jaar te soo xamut fan ngay jaar pour nga mën a faj saafaray nit ki pour nga mën a faj jàngoro nit ki dafay jafe waaye soo ko seetee xool ko ba xam lan moo ko téye xam lan mooy gàllankooram su ko defee nga wax ko ay saraxam ci kàttanu yàlla soo ko ñaanalee pour ñaan gi gaaw dafay yomb seet ak listixaar bi duñ benn ndax listixaar looy fanaanoo la te li ngay fanaanoo da nga koy liggéey. ci waxtu wi nga xam ne yaa ngi waaj a tëdd wala nga bàyyi ba nga xam ne quatre heures du matin soo ko liggéeyee nga xam ne nelawu fajar du sori nelawu fajar du sori dina la wan nga gis jëxërën seet nag tegtal yoo xam ne la da nga koy def rek bu fekkee ne da nga dugg ci ratmu da ngay dugg am yoo tomb rek mu am lum la wan nga xam ne kii bunt bii mu taxaw ci nangam la taxaw waaye su fekkee ne listixaar la moom daf lay wan nga gis kon wan nga gis moo gën a wér tegtal. bu dee seet la cinq 5000 laa koy defee bu dee listixaar la 5000 laa koy defee bu dee seet la 3000 laa koy defee sëriñ bi. kon listixaar bi <laughs> sëriñ bi dama lay wax ne la listixaar ci boppam moo gën a jafe listixaar moo gën a jafe seet. listixaar moo gën a jafe seet moo tax listixaar bi ci boppam 5000 leen koy defee su ko defee bu ñëwee ci seet bi nga xam ne boobu jooni jooni lay nekk su ko defee ñu defal la ko 3000 francs pour bañ benn nga am benn jafe-jafe. Euh, léegi dafa bëri jàngoro joo xamante ne nii. Mm-hmm. nit dañu koy dañu koy dañu da leen di dal. Mm-hmm. rawatina ci ñuy fare ci làmb. Mm-hmm. muy nopp. ñu leen di mhm. loolu takk la tudd takk nag ñun yàlla dafa dogal ne luñ donn la ci suñ wayjur wi nga xam ne wayjur wu góor la waaye moom mu ngi ko donnoo ci wayjuram wu jigéen muy Kumba Fay man sam ci boppam daan na téye nit takk ko su fekkee ne nawetaan la daan na téye équipe takk ko su fekkee ne mbër la daan na nit ki takku ko ba nga xam ne du mën a yëngatu te secret yooyu wax dëgg yàlla dogal na ne mu ngi ci ñun képp koo xam ne soxla naa takk nit suñu joxee turam ñu waxtaan ba déggoo ci kàttanu yàlla ñu toog fi ñu toog tee buumu béy jat ci li ñuy jat sikki mi sikkee sa sikki mi sàkka sikkee wax ca wax ya nga xam ne ñun moom la ñuy wax waaye lii den koy jox nit ñi rek pour ñi nga xam ne ñooy gëstu xam ñu dem gëstu ji xam te xam ne alxelmu huwal imaam xam-xam mooy jiite lu nekk képp koo xam ne soxla naa takk nit képp koo xam ne soxla naa takk nit képp koo xam ne mu ngi fubal nawetaan bëgg a takk nit su ñëwee ci Cheikh Ahmed Dame dama ne man dinaa leen takk ba ñu duñ yëngu te ci alquran laa leen di takk. waaw bu dee làmb nga xam ne mbër yi ñu ngi jongante surtout euh, mbapat. Mhm. mbër mi bu la yóbboo stade mboolem ñi muy dajal mën nga di leen takk di leen takk muy daan ba muy àgg final. di leen takk loolu loolu damay toog rek nga di ma jox tur su fekkee ne dew ma ci làmb ji fii laay toog ci kër gi rek di jokkoo ak yéen téléphone. koo war a bëree rek ngeen ne ma diw sàngam la tudd su ko defee ñu takk ko ci buumu bëy bi rek sëf ko loolu moom amul benn jafe-jafe. mos yu bëree bëree bëree bëree bëri du benn du ñaar ci mbappat ah. wallaay lansim du benn du ñaar. ay mbër yoo xam ne ay mbër yoo xam ne maa leen di samp ñuy daan. waaw du benn yoon du ñaari yoon. bu dee ci bëree door bi. amaguñ ci client. waaye bëree door bi képp koo xam ne ñëw nga ci ñun ki ngay daje ñu xam turam ñu téye ko ba loxoom yi du yëngu dinañ ko téye ba loxoom yi du yëngu suñ ko ko defee nga gis ne gaa yi tekki nañ ko ndax am na loo xam ne dafay tekki takk bi ñu takk nit ki waaye loolu suñ ko defee ñun dañuy bàyyi ba ngeen dem taxaw ci digg géew bi yéen ñaar nga xam ne war ngeen a sëgg ñu door a takkaat takk gi sëfaat ko su ko defee loxoom yi ci boppam dootul mën a jóg incha allah ci kàttanu yàlla. Euh, ci noob nag moom xam-xam boo xam ne la. de yàlla daf ñu koo xamal. noob mooy lan not nit ki ba nga xam ne yow li nga bëgg moom lay def lii mooy noob léegi nag nit ki su fekkee ne danga nga koo bëgg a noob nga bind turam isaab ko xam biddiwam ci lan la jàpp su fekkee ne moom moo la sut biddiw. pour nga jàpp ko dafay nekk loo xam ne jafe-jafe la moo tax sëriñ su bëri dañ ciy am jafe-jafe da gis sëriñ di liggéey nit ba pare xoolut biddiwam su ko defee moom su liggéeyee liggéey bi du jàpp su ko defee ñu ne sëriñ bi xamul dara fekk sax xamul dara nag su xamoon dara dafay jaar ci yoon wi nga xam ne ci yoon woowu lañuy jaar pour mën a téye nit ki ndax nit ku nekk dafa am heure boo koy liggéey am na ñoo xam ne bu ñuy nelaw nga leen di liggéey bu fekkee ne tubaab la nit ku xonq la kooku boo ko bëggee liggéey da ngay bàyyi ba jant bi di waaj a nga xam ne dafay fekk mu nekk ci xonq nga door koo liggéey su fekkee nit ku ñuul la diggi bëccëg nga koy liggéey ndax ay mbiram dafa tàng xam nga lii bu fekkee ne xamoo ko ci liggéey léegi nga bëgg liggéey nit ki dafay nekk jafe-jafe pour mu jàpp dafay nekk problème waaye soo bëggee noom nit ki mu woyu si la dangay ngay turam xam lim jàpp su ko defee ñu xam sa biddiw lan la bu fekkee ne yow ki ngay liggéey moom moo la sut biddiw ñun ganaar lañuy jël rek am lu ñu ko booleet su ko defee ñu isaab tur woowu isaab turi ganaar gi su ko defee mu am tur woo xam ne dinañu ko jox mu sut biddiw kooku su ko defee lépp lu ñuy liggéey ci kàttanu yàlla ñun dina gaaw lépp lu ñuy liggéey dina yomb te ñu ngi koy teg ci xam-xam dong waaw euh, mbirum mooy njariñ parce que gis nañu bari dañ koy utiliser ci anam boo xamante ni ci lor nit waa kay ñun nag heure boo gisee ñu jël nit noot la ñu jël nit noob ko dafa fekk ne ki nga xam ne moom moo ñuy wax dinañ la wax li nga xam ne loolu la diina santaane su fekkee koo xam ne la nit ki daf koy daf koy sonnal te moom jëkkëram la di ko sonnal di ko toroxal ma ne loolu moom dama ne na dakk dégg nga wax bu baax sëñ Bas dama ne loolu moom na dakk kuy jël jigéen di ko toroxal di ko sonnal su ñëwee ci Cheikh Ahmed Dame su ma ko waxee rek te ma xam ne ma laaj ko mu wax ne wax ji dëgg la kon dama koy seede sama diggante ak yàlla ci kàttanu yàlla dinaa ko noobal waa ji ba nga xam ne su ko digalee dara dina ko def allah ci kàttanu yàlla loolu moom maa ko wax ca kaw. jabet bi mu ngi yëngal dëkk bi jabet bi moom maa ci toog jabet moom fu mu ne nii xëccootuma cee kenn waaw sëñ li ma bëgg mooy bu fekkee ne doomu aadama dafa nekk ci réew bokk ci euh, euh, citoyen réew mi nga xam ne dafa nekk ci dëkk bi dëkk ci dëkk bi dama da dama xam ne bu fekkee ne am na lu ko yàlla jagleel loolu nguur gi ci boppam ñoom ñoo ci war a jóg pour dimbale ko dama ne man nguur gi ñoo war a jël samay responsabilité man lépp lu ma soxla ñu def ko ndax benn doomu réew mi la yàlla dimbale ko may ko ci feebaru jabet mu di ko faj dama bëgg ñu yóbbu ma ci hôpital yi may xëy ji di wàcc di faj ni ñu yore jabet jabet laa ne dama bëgg mu jeex Sénégal te loolu maa taxaw pour représenter ko maa taxaw pour jaayante ko man Cheikh Ahmed Dame bëggatuma jabet nekk ci réew mi loolu moom na na fi dëñ loolu moom man maa ko wax ne jabet na fi dëñ nguur gi ci boppam laa soxla ne nen ñëw ñu jël ma ma dem ci hôpital yi di faj nit ñi ñuy wér ci kàttanu yàlla lii moom yàlla ma ko jagleel jabet moom damay wax ne maa ci toog jabet moom mbooleem sëriñ bu ko doon faj bi mu déggee ne man ñëw naa kerek la ko bàyyee faj jabet moom fu mu ne nii man maa koy faj waaw waaw sëñ jabet maa ci toog maa koy faj jabet kenn du ko faj. waaw waaw jabet kenn du ko faj man maa maa moom jabet. Hmm. nen ma jël teg ma ci hôpital wala ñu ubbil ma place bu mag ma di fa fajee jabet jabet kese. boobaa yeneen ñaan yi dinaa ko sant gars yi ñu di ko def ndax maa ngeeg ay nit ñoo xam ne lu ma leen sant dinañ ko def ci kàttanu yàlla man ma toog rek di faj jabet. waaw jël naa pour loolu loolu moom engagé naa ko waaw. Cheikh bi ñu ñëw ci wàllu làmb exclusivement dama koy seetaan bu baax. mbër yi ma xam bëri na. limal ma ñaar ba ñett boobaa nag damay jël Modou ndax moom yàlla dafa dogal ne dama koo bëgg. Mm-hmm. waaw damay jël Modou mm-hmm. damay jël Balla Gaye mm-hmm. damay jël Eumeu seen damay jël yeneen yeneen i mbër yeneeni mbër waaye daal li ma ci mën a xam moom. mooy Modou daal moom euh, ku ma bëgg la te yàlla rek tax. xam nga ne Modou ak euh, Ama Balde moom ak Ama Balde def naa ci ay gëstu. Hmm? diggante moom ak Ama def naa ci ay gëstu. diggante làmb ji nga xam ne mu ngi war a am ci diggante Lac de Guiers ak Eumeu Sène def naa ci gëstu waaye dafa am lu may bañ rek ndax sëriñ bi daf ma wax ne ma am na boo dematee ci jotaay am na yoo xam ne bu ko tudd hmm. waaye diggante Sonko ak Macky Sall xam nga waxoon naa ci. te la ma waxoon leer na waaye wax yooyu sëriñ bi nee na daf koy aaye buñ def loolu ndax loolu dafay mel ni da ngay yéeg ci xëy bug yàlla gi te doomu aadama bu nekk dafa war a nekk di jaam di suufeel boppam di wax li nga xam ne moom moo teew waaye bul wax loo xam ne ñëwagut loolu soo koy def nit ñi dafa am fu ñu lay dëkkale te man dëkkuma foofu. ah waa léegi lamb Modou Lo bi ak Ama ci mën a junj rek. Balde xool naa ko sëriñ bi. gis naa Ama fi mu jàpp gis naa Modou fi jàpp combat bi am na lu ma ci gis loo xam ne su ma gisante woon ak Modou rek dinaa ko wax tegtal bi ci kàttanu yàlla. kon daal Modou Lo lañ jékkoogul. ma de ah. dama ne làmb ji xool naa ko gis naa Ama fi taxawee gis naa Modou fi mu taxawee waaye su fekkoon ne gis naa Modou jamono jii nii dinaa ko jox tegtal boo xam ne ci kàttanu yàlla daf koy daan. Hmm. waa lii moom ci kenn mere dafa fekk ne damaa xool. li ma xool wan ma kon dëgg rek laay wax. gisoo ci victoire. gisuma ci victoire. Ah. waaw waaw. Lac de Guiers Eumeu Sène bii ñu dëgmal gis naa ci victoire. ci côté ban. <laughs> nañ jàll feneen sëriñ bi <laughs> nañ jàll feneen. waaw kon garaaw waaw boo leen nii ci côté nga amateur en tant sëriñ amateur. Mhm. Euh, kan nga gën yaakaare moom laa gën a ndam. tant waaw. Ah, ndax euh, loo gis ci moom lu ma. loo gis ci Eumeu Sène lu nekkul ci la de dafa bari ci ah. qualité bëree bi hmm. surtout qualité bëree bi su fekkee ne bëree la Eumeu seen moo ko ci gën a xereñ hmm. su fekkee ne dóor la Eumeu Sène ko ci gën a xereñ hmm. ndax Lac ni muy dóoree baaxut na ma jéggal nag <laughs> ndax xam naa ay nitam. waaw. boobu it moom euh, mois de juillet la. Mhm. bu génnee ci koor gi. Mhm. ko. déedéet boobu làmb jooju xoolaguma ko. làmb jooju xoolaguma ko. mais boo ko en tant que amateur. waaw bu ma ko doon jàngat bu ma ko doon jàngat dinaa am dinaa am dinaa am lu ma ci lu ma ci loo xam ne dinaa ko ci wax mhm. waaye dëgg-dëgg dafa am loo xam ne dama ko soxla ci su may wax. mooy wax joo xam ne dafay tënku rek ci xam-xam mu bañ a tënku ci xel. man damay bëgg toujours su may wax rek wax ji tënku ci xam-xam ndax alxelmu huwal imaam xam-xam mooy jiite lu nekk moo tax lépp loo xam ne maa ngi koy wax ci diggante nit ak nit dama bëgg muy tegu ci loo xam ne lu lu leer la di tegu ci loo xam ne lu wér la bu ëllëgee ngeen ne ma si Ahmed daa mel la waa la béykat ngeen ne ma waxoon nga ma nangam ak nangam comme ni ma la waxee woon ci sonk loolu rek laa soxla. dëgg la. Mm-hmm. Euh, bu njëkk da cee waxoon en tant sëriñ en tant que ñaankat. Mm-hmm. mais tey dama bëgg nga wax en tant citoyen sénégalais. Mm-hmm. Euh, affaire bi ni mu démarré ba ni mu jeexee nii ana ban gis-gis nga ci am. waaw gis-gis bi ma ci am dama la doon wax ne la balaa xéwal di ñëw balaa bànneex di ñëw il faut jafe-jafe am jafe-jafe boobu nag dàqu na fu mu ne nii gis naa ay bunt yoo xam ne xéwal la yoo xam ne mu ngi ñëw ci si Sénégal te nit ñi ñëpp nit ñu ngi jaaxle nit ñaa ngi tiit. ci lan ci jafe-jafe dëkk bi ci dëkk bi nga xam ne dafa ñàkk xaalis yaa ngi dégg ci dëkk bi nga xam ne dafa métti ci dëkk bi nga xam ne dafa dëgër waaye maa ngi béggal sénégalais yi maa ngi leen di béggal ne leen dëkk bi dina neex te du yàgg incha allah fépp fu sénégalais nekk xéwal dina la fa fekk waaye li may digal sonko mooy lan ñun ñëpp ci réew mi leen dëkk li may digal Macky sàll mu dégg te xam ne ñun ñëpp ci réew mi leen dëkk lii defar réew mi moo gën li koy yàq te ñun ñëpp dama jàpp ne Sénégal moo ñu tax a jóg gannaaw Sénégal la ñu tax a jóg nag neen fexe nu ñu defaree suñ dëkk bi ndax ñun dëkk bi ñun ñoo ko moom kenn moomu ko te jàmbur du jugee ko ci biti du ñu defaral senegal ñun neen booloo ñu nekk di benn te xam ne nekk di benn rek moo ñuy jëriñ suñ nekkee di benn ci kàttanu yàlla lépp loo xam ne bëgg neen ko rek yàlla dinañu ko defal incha allah ci kàttanu yàlla jërëjëf ngi sant yàlla bu baax di sant ñi nga xam ne toujours rek dañuy bokk ci ñi nga xam ne dañ may dimbale di bokk ci ñi nga xam ne dañ may ñaanal yàlla di bokk ci ñi nga xam ne dañ may bégee lu deme ni suñ sëriñ Mawlaaye Cheikh Baye Diagne toujours ma di ko tagg di ko wax ne ko moom moo ñu defal tawaytu ashahaltu tariqa ila al xaqi li kullil muridi waslul xaqi bil xaqi moom dafa nekk koo xam ne dafa sonn ci man nekk koo xam ne daf ma bëgg te yàlla rek tax maa ngi koy ziyaara bu baax di ko ndokkeel sëriñ bi di ziyaara ki nga xam ne mooy Touré ak Seydina Omar di ziara képp koo xam ne yaa ngi jàpp ci samay mbir di wax ne maa ngi ziara Baye Ali ak fii nga xam ne Dakar ci 22 di néeg sëñ Basiiru ñu ngi koy ziyaara bu baax ak mbokki taalibe yi ñu ci fekk yëpp ñu ngi leen di ndokkeel bu baax di leen ziyaara di ziyaara waa njaañeen di wax ne su ma waxee te tudduma leen dafa dina métti ci man trop ndax njaañeen dafa doon dëkk boo xam ne sama dëkk la dëkk boo xam ne den maa bëgg te yàlla rek tax maa ngi leen di ziyaara waa njaañeen yëpp di ndokkeel ñëpp di bëggee ñëpp di wax ne képp koo xam ne tudduma la bàyyil xel ne sama xel mi ak sama xol bi yëpp mu ngi ci yow maa ngi ziyaara Baye Ali Diagne ak Baye Maas ak Baye Malick yëpp ñu ngi leen di ndokkeel bu baax wasalaam jërëjëf ñu ngi ziyaara ñëpp ñëpp marhaban